ginnaaw bi ma leen santee sant yàlla bu baax ci woote ñu wuy si la ndaje mi dañu tàmm bu at élection jotee baax xew-xew bu rëy ci réew mi te ñu xam ne lébu yi war nañ ci wax mun dañuy daje laajte ndax war nañ ci wax ça fait 15 jours la collectivité était en conclave nous avons discuté des problèmes de l'heure ah ñu ngi wax ñu waxtaan ci li nga xam ni moo xew ci réew mi ñu ne ma grand sëriñ lii de la ñu bëgg nga waxal ñu ko réew mi loolu lan la ñu ne élection yi na am jàmm élection yii nañu ñaan yàlla képp ku gañe sa moroom gañe ne ko félicité naa la nañu ñaan it que nit ñi vote ñibbi moo gën vote dem hôpital vote ñibbi moo gën vote dem dëj vote ñibbi moo gën vote dem ci kaso bi ñu wax nag ni candidat yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu def ko ci jàmm kenn ku ci ne boo gañee jox sa moroom loxo ni ko gañe naa ki gañe ki ñu gañe nungu ni gañe nañ ko waaye ci kaw loolu ñu ñaan nguur gi muy état du Sénégal mi nga xam ni moo yor sécurité nationale nañu sàmm sécurité sénégalais yi ndax voté nag àndul xeex voté àndul ñu jam la paaka voté àndul ñu taal sa kër te loolu du suma compétence parce que man su ma yoroon tey arm xeexal yow yoon daf may dab kon yoon nañu jël réew mi en charge def ci sécurité bi war pour nit ñi dem ci élection yi ñibbi seen kër ci jàmm xëy liggéey. joxewoo ba ñu consigne de vote. rus naa Sénégalais yi nawloo naa leen ba jomb naa ci taxaw ci télévision naan wooteel leen diw. parce que le vote est secret j'accepte aussi d'être un démocrate j'accepte de respecter les institutions de la République nangu naa ni réew mi réewu démocratie la. nungu naa tamit ni kuréel yi ngànk réew mi di doxal élection nungul naa leen ndaje mi nag li fi xew dafa am waa Yoff ñëwoon Ndakaaru ne ñu ngi leen di dénk suñu doom ju Abdoulaye Diouf Sarr ndax candidat la ñu ne danañ ko waxtaanee ñu ñëwaat tey dekkalaat loolu ñu ne dénkaat ne li téye nañ ko daañ ko boole dénk yàlla loolu lañ ci amoon lu ñuy wax asalaamaaleykum.